alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du ibadallah mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom yeewu jaamu yàlla ak loo mën a nekkee ngalawaay da nga caa war a boole di sant sa boroom subhanahu wa ta'ala boroom boobu ñu ngi seede na moom dong yeyoo ñu koy jaamu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mu jéelu yonent bi mu yónni woon ci ñun ngiree mu jàngal ñu nuñ koy jaamoo yal yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmiddin mbokk jullit tey ñi ngi nara jëmale sunu xutba ci aaya bu màgg bu sunu boroom di wax naan in hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran jii de mooy yóbbu ca jukko ye gën a kawe ca melokaan yu gën a rafet ci kaw suuf ba jullit bi nga xam ne moo xam téere boroomam kooku rek mooy nit ku nite koo xam ne da réussir ci mboolem loo xam ne da ko wër looloo tax ba nga la wayu jullit xamal ni alxuraan ji yàllaa ko indi muy leeral lépp lu mën a doon la jiitu di la leeralal sa diggante ak sa borom bi la bind di la leeral ban rapport nga war a am ak li nga xam ne mooy adduna bi la la wër ci asamaan ak suuf ak géej yéeg ya ko wër di la xamal naka nga war a jëflante ak sa bopp naka nga war a jëflante ak sa famille noo war a jëflante ak say mbokk noo war a jëflanteeg say dëkkandoo ban relation nga war a am ak umma islam bi yëpp ban relation nga war a am ak xatta say noonu loolu lépp da ngay gis ne sunu boroom yàlla bàyyiwul ci loolu dara ay yow julit xamal ne jubluwaay bi gën a rëy bu alxuraan di woote mooy xamal la kan mooy sa borom ay borom boobu alxuraan nga lay woo ci ni nga xamee ne yàlla kenn la ca loolu daanaka yàlla bind asamaan yeeg suuf moom lépp doomu aadama yi xaw nañ ci dëppoo mbir mi kay mooy dañ koy bokkaale alxuraan nag ñëw na la déedéet yàlla moomu kenn du ko bokkaaleeg dara du malaaka du yonent mu wax ak sunu yonent alayhi salaam ne ko ne leen man day dañ ma digal ma jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara sellalal ko sumuy diine ay lépp lu ngay def ci diine ji yàlla dong tax ma koy def yàlla moomu sant na ma ma bokk ci ñi ko jébbalul maa ngi ragal bis bu ma ko moyee mbugal boo tar buy dal sama kaw kon man yàlla rek lay jaamu sellalal ko sama diine ey yéen jaamu leen ku leen neex ku dul moom mbokk wax ji yàlla nga ko wàcce woon ci sunu yonente muhammad alayhi salatu wasalaam mi nga xam ne lu nekk ci kaw suuf moo ci gën a tedd waaye kon ndekete yoote moom dafa war a ànd ak ñun jaamu yàlla waaye mbokk alquran gannaaw ba mu la xamalee kuy sa boroom xamal na la it yoon wa ngay jaar pour dem ci moom sunu alquran moo lay xamal ni yàlla bindu la yaag jinne yi lu dul ngir ngeen jaamu ko su ko defee doomu aadam yi dañoo war a xam ne ay jaami yàlla lañu lépp loo xam ne yaa nga ca mu nar laa génne ca jaam googee ba ko jaamu yàlla googu moo lay tere njaaloo moo lay tere sàcc tere ral riba jaamu yàlla googu moo la sant julle ko rek aj makka kon yow danga war a nekk jaam xam ne moo meel nga kan moo la moom mooy sa boroom nga la way kon dootoo defeti sa bakkan dootoo defeti sa njaboot dootoo defeti sa alal lu dul lu neex yàlla moom nga xam ne moo la moom yàgg sa njaboot yàgg sa alal yeneen ci yàlla yooyu nga xam ne ñoo gën a tedd ci jaami yàlla yi jëflante ak ñun su la boroom xamal nañu ne kenn wuru leen a jaamu yahud yi dérapé nañu màggal Uzayru ba di ko jaamu chrétiens yi dérapé nañu màggal Isa ibnu Maryam muy Jésus Christ ba di ko jaamu amma suñu borom lan la ñu waxoon mooy rusulan mubashirin wa munzirin wa ma ala rasuli illa al balagh yeneen ci dara waru ko lu dul mu jottali di bégal nit ñi bu ngeen jaaree fii dem àjjana bu ngeen jaaree fii dem sawara yeneen yooyu kon kenn du leen jox benn cër ca cër nga xam ne yàlla da koo yeyoo looloo tax sunu yonent alayhi salaatu wasalaam sunu borom ne ko jottalil nit ñi ne leen man nit rek laa comme yéen yàlla moo waxyu ci man loolu moo ma différencier teqale ma ak yéen seen yàlla yàlla benn la ngal la way bu leen ko bokkaale ak kenn waaye mbokk yi la la wër tey jii ak a bari ci doomu aadama yi jant bi lañuy ñuy jaamu ñii géej gi lañuy jaamu ñii ay xamb seeni moroomu jinne am ñoo xam ne dañuy jaamu seeni moroomu doomu aadama ala kulli xaal sunu borom yàlla subhanahu wa taala lépp lu nekk ci kaw asamaan yi mu ak suuf moo ko ci def jubluwaay ba mooy lan ngiree ñu xam màggaayam xam xikmaam waaye xam ne moom rek mooy yàlla loolu tax mu ne xanaa nit ñi xalaatuñu ci li nga xam ne mooy kawtéef nguurug asamaan yi ak suuf xanaa xalaatuñu ci lépp lu yàlla bind te sunu borom nee na borom xel yu màgg yi day dañuy xool mbindaafanu yàlla yi na doon ca wàllu temps bala muy ixtilaafu leyli wa nahaar ni yàlla di changé jamono yi na wa xool ci wàllu espace yi la ci asamaan yi géej yi àll yi luñ ci xool dañ naan yàlla day lii bindoo ko ci neen ca wallahi amul lenn lay xool lu dul nga gis te kaawtiifu yàlla subhanahu wa taala xoolal garab gii nga romb mës na nekk benn xoox bu ndaw sunu borom yàlla génn ko maggal ko xoolal li ci nekk léegi ci ay branche xoolal li ci nekk ci ay xob xoolal la ci nar a génn ci ay fruits ila axiri waaye xoolal lu mu mën a doon sa doom bi nga xam ne barki démb njaay la nekk ab liir sa say loxo tey jii yaa ngi taxaw moom mu tiim la ci kaw loolu lépp mbokk ak lu mu mën a doon da nga cay gis sa kaaw fii fi borom màggaayam ak wéetaayam ci ne moom rek mooy yàlla waaye itamit àdduna boobu noo koy jàppee mboo ko ngay jàpp na àdduna moyen la ngir sakku sa ngërëmal borom ngir sakku aljanna sakku alaxira looloo tax sunu borom ne sakkul ci li la yàlla wërsëgal ci adduna daaral axira dàqantewul ak nag julit soo mënee utal dëkkuwaay bu baax waruwaay bu baax yére yu baax lépp loo mën a dajale ci alal dajale ko pour lan jublu ci ngërëmal yàlla jàkk yaa ngi nii alal la koy defar zakaata ngi nii alal la koy defar aj makka alal la koy defar kon lépp loo mën a dajale ci alal dajale ko lu mel ne jihaad fi sabilillah alal la koy defar lépp loo xamee ne kon yàlla da ko indi woon ci kaw suuf yow jullit da ngay gëm ne lii yàlla da koo bind ngiree ma jëfandikoo ko ba mën a tedd adduna waaye mën koo jaamu su ko defee képp koo xam ne topp nga adduna boobee di dang-dangi ci gannaaw alal ba fàtte sa jaamu yàlla ku mel noonu day xamoo woon lan moo tax yàlla subhanahu wa taala bind li nga xamee ni nii moom mooy adduna looloo tax yonent bi alayhi salaam daan ñuy wax ne ñaari rakka yi ngay julli fajar rek moo gën adduna ak li ci biiram muy naafila ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñuy wax ne ma xëy suba rek mën a wax subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar moo ma gënal ma xëy ñu ne ma yaa moom lépp lu jant bi di leeral te mooy planète suuf bi ak lu mu mën a doon loole kon julit bi xam dëgg-dëgg boroomam day xam ne li ko yàlla booleeg ci àdduna loole moyen la bu mu war a jëfandikoo waaye du nekk loo xam ne ab jubluwaay la bu muy topp ba muy sàggane jaamu yàllaam mbokk alxuraan moo lay xamal naka nga war a comporté ak sa bakkan bi te mooy bakkan boobu bànneex yaa ngi koy xëcc di ko yóbbu ci lu neexul yàlla seytaane mi ngi koy xëcc ci la nga xam ne mooy ay pexeem su ko defee da nga war a xeex ak moom xeex ak moom ba sellal ko loolee ana yoon ba yoon bu jëkk ba mooy nga fexe jàng sa diine ngal la waay julit ñi fexe leen ngeen jàng seen diine jataay yi nga xam ne dañ fay leereele diine lislaam ngal la waay bum leen rëcc ci alhamdulillah aka tumuranke woon ci jamono yi wees waaye fa lillahi alhamd tey jii aka bari ci jamono ji rawatina yéen ñi dëkkee Parcelles Assainies fa lillahi alhamd yàlla def na fi ci loo xam ne dafa ko ci dëkk yu bari ci kaw suuf xéewal la goo xam ne yàlla dana leen ko laaj yowmal qiyaama tey jii da ngay gis ne am na daje bu ñuy jàngale alquran alarba bu nekk ci jàkka ji am na daje bu ñuy jàngalee hadis yonent bi dimanche bu nekk ci jàkka ji jigéen ñaa ngi ne di daje ajjuma ju nekk gannaaw takkusaan ga altine bu nekk gannaaw takkusaan di jàng seen diine ca loolu ñu ko waxee fii ak bari ci ay place yu mu am demal 17 demal 26 demal ci gox yu bari loole kon ngal la way na ngeen jël seen dàll ngeen fas yéene dem déglu ji lan la yàlla bëgg ci yéen ngeen jëfe ko sunu borom yàlla ña muy sànni sawara bokk na la ñuy wax law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir tey bu doon amoon nañ di mën a dégg tey bu doon daañ xellu kon duñ dugg tey sawara kon dem leen ngeen déglu ñooy jàngale téere borom bi ngeen fexe jëfe ko loolu mooy xeex bi jëkk bi ngeen di xeex ak seen bakkan gannaaw ba tamit xam rek doyul xam da ngay xam xeex sa bakkan nag ba jëfe loolee xeex sa bakkan ba bàyyi la nga xamee ne moom la la alquran tere lii mbokk da ngay gis alquran moo lay woo ak njaboot xamal ne la njaboot googu ab responsabilité la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dana la ko laaj ka jiitu ca njaboot googu mooy soxna bi la yàlla booleel ngeen war a jàppalante ku nekk di dalal sa moroom ne borom mu ne ci samay kaawteef laa defe ci seeni bakkan ay soxna yoo xam ne da ngeen ci mën a dale di dale ci soxna si soxna si di dale ci yow ma def seen diggante yërmande ak ca feyel borom bi nee na ay kawteef mi ngi ci ñeel ñiy xalaat loolu moo tax ba borom bi ne wala tansawil fadla kom mooy bépp góor war naa xam ne am na ay droit yu mu am ci ay soxnaam waaye soxna si am yu am ci moom comme nam amee ay devoir ci kaw soxnaam soxna si am ay devoir ci moom muy àq yoo xam ne ku nekk bala ngaa xool lan la ma sama soxna war a defal war ngaa laaj sa bopp yow lan nga war a defal sa soxna waaye bépp jigéen ñi balaa nekk di kaas sama jëkkër lu may defal war ngaa xool yow sa war war ndax matal nga ko ba pare mbokk gannaaw loolu it doom yooyee seen borom yàlla subhanahu war sa wërsëgal leen responsabilité bu leen yàlla di laaj yowmal qiyaama alquran ne ne qu anfusakum wa ahlikum naara fexe leen ba seen njaboot gi ngeen dox seen digganteeg sawara ca loolu mbokk du mën a nekk lu dul ci ñaari mbir benn xamal leen seen diine yar leen ci diine jooje xamal leen seen diine yar leen ci diine joojee loolee ñu bàyyi ci xel bu baax alxuraan moo lay xamal kan mooy say waajur waajur mooy ka nga xam ne gannaaw yàlla defuloo yàlla ci kaw suuf lu gën a màgg ah def njëkk jëm ci say waajur looloo tax sunu borom mën a rafetal leen ngeen jëm ci ñoom rawatina bu waajur yi magee ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko ibnu mas'ud laajee li ñuy def ci kaw suuf lu ci yàlla gën a bëgg mu ne ko mooy nga julli ca waxtu wa mu ne ko ñaareel ba mu ne ko ngeen def njekk ci seeni wayjur loolee demal ci tubaab yi laaj di yi ñu jàpp ne ñoom ñoo ñuy jàngal ak nite ndax ñoom seen programme bokk na ci loolu ala kulli xaal ñu xam ne alquran loolu la ñuy woo jëmee te koo xam ne bëgg na ngërëmal yàlla ne fexe am ngërëmal wayjuram képp koo xam ne bëgg na tedd na fexe ba ay waw juram gërëm ko koo xam ne bëgg na échec na fexe ba ay waw juram mere ko noonu ak moom loolee mbokk da ngay gis ne alquran ci loolu la ñu jëmee waaye alquran it moo ñu jëmee ci ñu def njëkk ci la nga xam ne nii mooy suñuy mbokk mbokk lii di famille ci lislaam alquran da koo yaatal looloo tax mu ne xattaa ci lekk ga mu boole lekk ga ñu lekk suñu kër way jur yi sunu kër yaay yi na doon sunu kër tante yi bàjjen yi nijaay yi loolu lépp nu borom da koo détaillé ci alquran mu ne mbokk yi ku nekk da ngaa yéey ci sa morom loola it jeunesse su tey xam nañ ne mooy ñoo xam ne xarit la ñuy toppatoo am naa mbokk faalewuñ ko waaye mbokk alquran mooy sa mbokk jox ko ak xam soo ko waree dimbali dimbali ko soo ko waree jege jege ko soo ko mënee fat fat ko soo ko mënee jàppale jàppale ko ci lépp loo xam ne ni mbiri àdduna la te xam ne ne li la yàlla wërsëgal yépp yàlla boole na ci àq boo xam ne da koo yoral la nga xam ne mooy say jegeñaale mu ne wa aati zal qurba xaqahu mbokk ci loolu la ñuy gis alquranul karim dañuy woo ci benn aaya boo xam ne sunu borom yàlla fukki àq dajale na ko ci benn aaya ñu koy tuddee ayatul xuququl ashra sunu boroom yàlla mu ne mu leen yàlla bu leen ko bokkaaleeg dara def leen njëkk jëm ci seeni seen wayjur def leen njekk jëm ci seeni jegeñaale def leen njëkk jëm ci jirim yi ñi seen bàyyi dee bàyyi leen masaakiine yi def leen njëkk ci ñoom dëkkandoo yi nga xam ne da ngeen a bokk ak ñoom ak dëkkandoo yi nga xam ne dañ leen a soro ci mbokk ak ñi ngeen àndal ci tukki ak ña nga xam ne dañoo jóge bitim réew tukki ci seen réew ak jaam yi nga xam ne yéene ko sunu borom yàlla bëggul képp ku yëg boppam kuy foo ko réewu lii kon mbokk moo lay won ne mboolem loo xam ne ni wër na la ab jullit dafa war a bàyyi xel ne alquran won na ko ne ko nii mooy na nga xamee ni nii noom nga war a jëflante ak ñoom noonu itamit moo lay won ne umma bi yépp sunu borom yàlla daa bëggoon ñu jàppalente ca yàlla tax dimbalente ci yàlla tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne wal muminuuna wal muminat baaduhum awliyaau baad la nga xam ne mooy jullit ñi góor ñi ak jigéen ñi ku nekk ci ñoom day yow yaay taxawu sa moroom ay di seet la koy jëriñ nga daal di cee taxaw loolu itamit mbokk lañu suñu borom yàlla yóbbu hatta suñu dëkkandoo yi nga xam ne ay chrétien lañu maadaama noonoo doxul suñu diggante borom bi ne day terewuma leen ngeen def nekk ci yéen ku ci am dëkkandoo chrétien loo man ci mbaax woon ko ko loo man ci teraanga won ko ko ak bari ay junni junni chrétiens yu dugg biir diine l'islam lan moo leen ci dugal mooy dëkkandoo yu rafet jukko yuñ dëkkaloon loolu leen yóbbu bañ dugg ci biir l'islam am naa loolu nag bokkul nag ñoo xam ne ay noonu l'islam lañu fettirlu ca ñu mel noonu da ngaa war a ak ñoom mbokk jullit ci tënk lii dañuy gis nga mooy alquran waaye mu nekk benn musiba bu rëy mbokk musiba bu rëy tey mooy en quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci place jullit ñi soo leen gisee ñu daje ubbi téereb yàlla bi rek waatal na nit moo dee mooy nit moo tax ñu dajale di ubbi téereb yàlla bi mbokk téereb yàlla bi yàlla da ko indi woon pour ñu dajaloo ubbi ko di ko jàng ngir jëfe ko li yunzira man kaana hayya amma nit dee ñu dajaloo ubbi téereb yàlla bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam musu koo jëfee ay sahabaam mosuñu koo jëfee doo ko fekk ci téere imaamu malik rahimahullah doo ko fekk ci téere albuxaari wala muslim la nga xam na ñoo doon jàngale jàngalekatu diine yu jëkk ya doo fekk kenn ñuy wax ci adaab yi ñuy war a defal ab néew ñu ne bokk na ca jël alquran ubbi ko di ko ko jàngal loolee kon ngalawaay alquran ji ku nekk ci ñun bala nga jóg naan da nga koy wàcceel sa baay wala wàcceel sa war ngaa laaj sa bopp ndax man wàcceel wàcceel nañ ma alquran am déet ndax mas naa dem ci jataay boo xam ne commencé nañ ji ma tafsira suratul fatiha suratul baqara ba baa ñu yegg suratul nas ma xam ne lii la yàlla bëgg ci man lii la yàlla bañ ci man ndax loolee am na ci ñun laa mbokk jurit amul ndax seytaane bi yàlla wàccee ab téeréem na yonent bi alayhi salaam lal ko doomu aadama yi seytaane dafa ñëw ne déedéet tafsirul quran musiba la boo waxee dëgg juum nga boo juumee dugg nga ci kéefër alxuraan kenn mënu koo firi xarfu boo gis am na biir biir ba am biir ba baa juróom-ñaari biir kon alxuraan nuñ koy def mooy nañ ko teg fee rek buñ bëggee jukkub jukki ñu jukki ca waaye mbokk téere boo xam ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo ko wàcce ne téere baa ngi nii maa ko wax yu jëme ci yow muy ruux gu bawoo ci man yow yonent bi alayhi salaam wasalaam mosoo xam téere waaye maa la ko jox ngir nga génn ci nit ñi ci lëndëm yi yóbbu leen ci la nga xam ne mooy leer yi ngiree nga leeralal ko doomu aadama yi yonent bi alayhi salaam ne jottali leen ma même bu doon benn aaya nga comprendre fexe jottali ko keneen ku dul moom loole kon mbokk ñu xam ne wax la ju seytaan réussir ngir dox diggante nit ñi ak téere bi yàlla bi mbokk jullit téere bi yàlla boobu am na ñu bari ci doomu aadama yi lan lañ ci jëflante ak moom mooy bind ko ay téere lii ñu takk seen i ndigg lii ñu takk seen volant oto yii ñu takk seen buntu kër yii ñu takk seen suufaroon lal mbokk wallahi alquran loolu taxu ko woon a jóg alquran benn code ay yoon la yoo xam ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo ko wàcce daf ko muy siraatul mustaqim loolu nga xam ne yaa ngi koy ñaan yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar ci bés bu nekk ca mooy yàlla yàlla nañu jubal ila siraatul mustaqim siraatul mustaqim boobu moom mooy alquranul karim bi nga xam ni nii sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo ko wàcce wax ne ah wa inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam borom bi subhanahu wa taala yëg ne qul inna huda allahi huwa alhuda koo xam ne da ngaa bëgg a jub xamal ne siraatul mustaqim boobu mooy alquran ji looloo tax suñu yaay Aïcha radiyallahu anha da nga xamee ne saxaaba yi ñëw nañ ci moom na ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla tagg ay jukkoom lan moo nekkoon ay jukkoom su dee Aysa tontu leen tontu bu gàtt moom du jukkoom moo nekkoon alquran ay mboolem lam daan jëflante ak boppam ak i dëkkandoom ak i noonam ak i lépp ci alxuraan la ko daan tënkee waaw yow ñu xamul alxuraan nooy roye yonent bi alayhi salaam ci jikkoom loolee kon mbokk julit ngal la way nañ delluwaat ci téere bu yàlla bi nañu xam ni jël sa doom yóbbu daara mu mokkal alquran du ne loolu mooy sa waru war digganteem ak alquran loolu départ la bu ndaw a ndaw ndaw ci la la war mooy xale boobee nam la waree war ko war ngaa fexe ba mu comprendre alquran joojee nga xam ne moom la doon jàng ca daara ja waaye gannaaw bi itamit yaak moom ngeen ànd di tàggat seen bopp ba jëfee alquran jooju nga xam ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala ëllëg dañu koy laaj lii rek la ñu yàlla garantil ci buñ ko defee day moo ñuy garantil dund gu tey ci àdduna ak dund gu tey ci àllaaxira man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yamaluun képp koo xam ne bëgg nga dund gu dal am xol bu féex ak loo mën a am ci alal ak loo mën a nekk ci ay feebar loo mën a nekk ci position waaye yàlla teyal sa dund boo wàccee biir bàmmeel fekk fa ngërëmal yàlla boo demee ëllëg alaxira fekk fa aljana bu lay xaar mbokk loolu benn yoon dong moo la ko mën a may ca mooy ngay jàng jaar ci njàngaleem alquranul karim yal na yàlla subhanahu wa taala xamal ñu lan mooy alquran wërsëgal ñu dund alquran wërsëgal ñu ñu teete sunu njaboot yal na yàlla defal ñu alquran mu ñuy gunge adduna yal nañu alquran layal ci kanamu borom bi ba tàbbal ñu biir aljanna yal nañu yàlla subhanahu wa taala defal alquran suñu wéttal ci biir aljanna yal na yàlla wërsëgal ñu mujj gu rafet defal ñu jàmm suñu biir réew wàcce jàmm ci réew jullit yi nga xam ne yépp dañoo nekk ci ay xeex fitna ya fa am yal na yàlla fay ko te bañ koo yeggale suñu réew yal na yàlla yéwénal suñuy ndaw yal na yàlla rafetal mujjug suñuy mag yal na yàlla wàcce jàmm ak bëggante ak yërmande suñu biir yal na yàlla musal ñu ci ak noono yal nañu yàlla musal ci pexey sheytaan musal musal mi ci la nga xam ne mooy suñu ay bakkan allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin